amna tamit bébé clear da nga am problème mu peau am jafe-jafe ak ay rew ay point noir utiliser bébé clear bébé clear day réparer po. peau noyel ko taxi At ko ak bébé clear da ngay commencer gis résultat légui légui légui ndax day rajeunir ce peau sublimer ce teint teg si foo ni tëll ñu ràññee ak bébé clear yanj ba faw ngay am fofu rodis 77 441 08 18 77 441 08 18 ma sàcc wax leen Coco Clear si lu yàlla sàkk jigéen ndox ak gàncax ñoo ci dàq xale bu yànj bi daa bëgg gàncax gàncax bëgg ko moo tax mu xamal ko li gën ci dërëm koko dara ko ci po jëfandikool Coco Clear ak Coco Clear da gën a tàkk ni jant waaw waaw fu jant bi leeree nga leere fa Coco am na lotion am na crème boo xam ni da lay leeral jox la teint bu mel ni jant ah, ci 77 988 16 10 wala 77 608 72 12. White Secret White Secret staru diw yi dikk na. crème bi lay jox teint bu macha allah teint bu macha allah bu ñëpp di coowee nag ba coow li jug nga ne law la cat white secret maanaam teint bu impeccable effacé imperfection yépp lu mu fekk ci sa kanam yóbbu ko lu mu fekk ci sa yaram yóbbu ko fexe muy nes nesi fu mu toll white secret fee mu jigéen waaw waaw ñu taaru ñi moom rek la ñuy xëccoo teint wóor mu defal la ko ak white secret waaye yow white secret ak ay ci taaral teint white secret 77 441 08 18 77 441 08 18 ou le 77 449 61 91 Bienvenue à Central Equipment. Vous êtes promoteur. Vous voulez investir dans le domaine de la restauration ou encore dans l'hôtellerie Aux ambassades qui désirent rénover la cuisine de leur résidence, les ministères, les ONG, une seule et bonne adresse Central Equipment, 6 à Serras Nord, en face de la cité Lobatfal. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. Du matériel de qualité exposé dans un cadre enchanteur. Quelle classe sacheuse, pasteurisateur, remplisseur liquide, moulin à grain mille, maïs, café, vous pouvez tout mettre en sachet. Des moules silicone, des poches, des pinces de service, moules à quai, couche-chef, sauteuse, écumoire. Central Équipement, c'est aussi du matériel électroménager de dernière génération avec micro-ondes, four encastrable. Pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, Central Équipement est en promotion. Une grande remise allant jusqu'à 30% est proposée. Profitez de nos packs pâtisserie, pizzeria, traiteur, fast-food et des packs surprises. Ne ratez surtout pas cette occasion. Central Équipement, votre satisfaction, notre plaisir. C'est un supermarché saint teranga Bumbour, Nek fit du croisement Salé. sur une station à payer, alimentaire vaisselle électroménager droguerie bazar Les plots soxla là, bu yéen ñi nekk Mbour Somone Ngaparou Sindia Madinatu Salaam lépp lu ngeen soxla mën ngeen ñëw fii jënd ko fi ak seen teranga seen bànneex sunu mbégte fără personalitate am soxna si maître boobu di jouer théâtre fii la dëkk. muy ban noonu jouer théâtre. mooy théâtre boobu. mère réseau xaw ma mère réseau. ah réseau. la. bëgg mu tëb mu dégager ndayu koñ bi mën ngeen ma defal lool. jib du coow. Hmm? jib du coow. <laughs> nga tudd. man Nene laa tudd. Nene Nene la moo tax ngay bàyyi sa yaay muy jouer ay rôle caga loolu aar na jar na ko ak xaalis aar na jarul yow ani man yéegal ma wàccee ma fu ma jëm nga naa ma sa yaay lu muy liggéey lu sa yoon. moo ko def bu ko defee ñu wax ko. bu sa yaay na si wax sa ma sa yaay li sa yaay laa. waaw yow yéen xaalis da ngeen a bëgg xaalis ba lu leen xaalis jaral yéen ko def am na loo xam ne xaalis jaru ko. yaa loo def si mbedd bi. yow nan nga def si mbedd bi yow tamit. ma lay nga may laaj. bu ma sonal lan nga yef si mbedd bi yow. comme ñoom nee na laa jëm. ba nee na yow mënoo bàyyi nee na ñàkk jom mënoo bàyyi doomu Merzo bu bon boobu moom baaxul ndeyam baaxul. nee ana nene nene dafa génn eh, nene bébé bu ma bébé yow ak sa lan ngeen di xaar pour génn koñ gis ku ñu rax dang fi gis keneen man yow ak sa nday lan ngeen xaar pour gën a nday koñ bi ndax koñ bi du koñu caga sa nday caga la yow caga nga mais nee na moom mi ngi mel ni comprendre situation actuelle bi moom mi ngi gis ni koñ bi ñu ngi sànni ay xeer duñu saaga ay ndey ma ne ko bul bouger mais fan la jëm waa koñ bi dañu sànni ay xeer ak dañu saaga ndey moo tax nit ñi bañ am seen soxla war ko bañ kan doxi teg ko fan ku fi am sa soxla danga koy doxi ah man lu ma ci metti mooy zéro caga taxul kenn doon caga sénégal lan moo tax xàmmewuñu personne ak personnage D'accord. mais le Sénégal fof lañ Le Sénégal comme xamé wuñ personne ak personnage. Madame, nga bal ma de ba nga xamé ni Sénégal xamé wuñ personne ak personnage lan motax ngay pas rôle Thiaga. Penda man artiste la comédienne la rôle jouer dama koy jouer parce que sama liggéey la man mais yow ne taxaw xam nga ne ak mes boobu du benn mbubb may sol la su ma paree dama koy summi ba mu set fële. dafa am loo ciy wax ah nokk ko nokk ko. Eh. Keba. taxawal taxawal oh, la kis. Eh, leen dal eh, taxaw ça va Hé, eh, dis-moi lan la oui ça va. Pourquoi le man hein voilà damal seen kër maa ngi. s'il te plaît il faut que ma lijjanti ko ak sama Je sais tout, laaj la lépp yow la yaay ñaata loolu ñoo fi nekk nga jël loolu caga di ko joué pour lan yow yaata fu ma génn ñu ne ma bi doomu caga bi sa yaay mooy may réseau yaay bi kenn naw loo tuñ yow eh, yow ma jàmm naa ma koñ bi kenn naw loo tuñ man koñ bi man dama leen a naw loo man ah gis nga dof moroomu dofam moo koy nawloo te waa koñ ba ay dof lañu kay toog dama soxla ñu kaa. yàlla nga doon def ci mbedd mi yoog ñoom bébé Samb. lan lay def ak ñoom. association féminine laa ne bëgg créer ak ñoom mais lan laa defal ne ak xale yi. yow nee yow lan la. maanaam lan la. mais laaj ko ko moom. waa koñ bi su ma génnee dañ naa ma caga nga sa yaay caga la sa yaay mooy mes réseaux kan moo naan la caga la xanaa sama naw lay nekk ci koñ bi fu ma génn yu jël ay ceinture yan di ma dàkk ji di ma dóor naa ma doomu caga bi génnal koñ bi ñoom ñooñu la seen yaay nekk caga la ñëwal eh, eh, eh, fan nga ñëppende mais mbaam bu la wéqi nga wéqi ko mbaam ngay doon ni moom <laughs> nene leen de dinaa la ko xamal gis nga lii dinaa ko régler te su ma la ko waxee rek ni ma gëm du ma ko bàyyee loolu. non man dama sonn franchement. jàppal nii man. xam nga ko. xam naa ko kay sa xarit bi nekk États-Unis Tata Dior Fall moom dafa màgget léegi. ban màgget yu taa Jool Fall mii doon gone amul lu dul cinquante ans xale bu ndaw nekk ci état am nga may wax màgget da iñaan de dama bëgg nag ñu kaa gis nga taa Jool Fall dalaa gis rek taa di bàdd ci yow de xam nga nag macha allah dangaa boo jantale sama doom ji ku la gis bëgg la

gis nga 20 millions dama cee bëgg defar samay ween ak samay taat bu ma yàqal ah ñàkk ba jom trop sam los bu taal ci moo benn jom maa ko jéppi lii lan la. lii nee na laa ko defaraloon. lekk ko xanaa dafa geddati moo xam jëlal yóbbu ko ci waañ bi. te ngaa wax ak Néné mu lekk lii ak Néné ni mu bëggee laax te Néné sa Néné la de. Néné sama Néné la. bind waaye Néné dafa ragal dafa capricieuse trop. te lii yëpp man la ndax maa ko neng-nengal ba mu def ni ba mu mel ni mel yow it nga ñëw yokkute ci xar mi karaw non damaa sonn neexaluma ko ci la yóbbu ci waañ bi. benn bañ ci gémmiñ moom mu weex te bis bu sëyee lépp dina changé dama nga wax ak moom waaye s'il jàpp waaye nga jug neexal xale bi mu lekk. boo koy fat bi di woo muy lekk nee na su may bëtti xol yow rek lay gis neerum danga soof bébé yow rek say caprice ba doon kéer ba man xoole naa ba bëgg lay oh ñëpp nangu seede maay dof bi waaye force faaw nga nanga doon docteur bi yow sip nga sa maak yow ay jooy la daal oh gis nga ñun loo léegi ñu saamali ndax mbëggeel dañ ko mën suma ñaaleeg fekki te man duma ma daay man du ma baay eh, oh. gis nga ñoon laar léegi ñu saamali ndax mbëggeel dañ ko mën suma ñaaleeg am tamit bébé clear da nga am problème mu peau am jafé jafé ak ay rew ay point noir utiliser le bébé clear bébé clear day réparer ce peau noyel ko taxi si ko ak bébé clear da ngay commencer gis résultat légui légui légui ndax day rajeunir sa peau sublimer sa teint teg si foo ni tëll ñu ak bébé clear il ba faw ngay am rodis 77 441 08 18 77 441 08 18 ma sàcc wax leen Coco Clear si lu yàlla sàkk jigéen ndox ak gàncax ñoo ci dàq xale bu yànj bi daa bëgg gàncax gàncax bëgg ko moo tax mu xamal ko li gën ci deram Coco dara gënu ko ci po jëfandikool Coco Clear ak Coco Clear dangay ngay gën a tàkk ni jant waaw fu jant bi leeree nga leere Coco Clear lotion amna crème boo xam ni jox le teint bu melni jant ah Rodis 77 988 16 10 wala 77 608 72 12. White Secret White Secret staru diw yi dikk na crème bi lay jox teint bu macha allah teint bu macha allah bu ñëpp di coowee nag ba coow li jug nga ne law la cat White Secret maanaam teint bu impeccable effacé imperfection yépp lu mu fekk ci sa kanam yóbbu ko lu mu fekk ci sa yaram yóbbu ko fexe muy nes nesi fu mu toll White Secret fee mu jigéen waaw waaw ñu taaru ñi moom rek la ñuy xëccoo teint wóor mu defal la ko ak White Secret waaye

Bienvenue à Central Equipment. Vous êtes promoteur. Vous voulez investir dans le domaine de la restauration ou encore dans l'hôtellerie Aux ambassades qui désirent rénover la cuisine de leur résidence, les ministères, les ONG, une seule et bonne adresse Central Equipment, 6 à Nord, en face de la cité Lobatfal. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient tout concurrence. Du matériel de qualité exposé dans un cadre enchanteur. Quelle classe Ensacheuse, pasteurisateur, remplisseur liquide, moulin à grains mille, maïs, café, vous pouvez tout mettre en sachet. Des moules silicone, des poches, des pinces de service, moules à quai, couche-chef, sauteuses, écumoire. Central Équipement, c'est aussi du matériel électroménager de dernière génération avec micro-ondes, four encastrable. Pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, Central Équipement est en promotion. Une grande remise allant jusqu'à 30% est proposée. Profitez de nos packs pâtisserie, pizzeria, traiteur, fast-food et des packs surprises. Ne ratez surtout pas cette occasion. Central Équipement, votre satisfaction, notre plaisir. C'est une supermarché saint teranga bu Nek fi croisement salé sur une station à payer. alimentaire vaisselle électroménager droguerie bazar Les plots soxla ci bu nekk Mbour Somone Ngaparou Sindia Medinatu Salaam lépp lu ngeen soxla mën ngeen ñëw fii jënd ko fi ak seen teranga seen bànneex sunu mbégte.

sa yaay li mu wax lépp dëgg la. booy mère Maada mën na nekk ci koñ bi théâtre kase ngay def de mais am kër gu ñëpp lu coow. ñu ne déet waaye nga yor kaat kaat bu mool yor ay millions. man loolu méttiwuma de mais xale yi mu dajale yépp dugal leen ci biir këram sa mère bi mère bi ceeb bu mag la. kon da ngaa gëm waa koñ bi li ñuy wax. waay. da ngay laaj wala da ngaa bëgg a xam. non dama lay laaj ndax da leen gëm wala gëmoo leen. bañ gëm gëm naa ko kay parce que dëgg la. vrai feeg man maay feeg. maire bi keroog fii laa ko romb traversé muy jéem a di piisaate foog na man mën na ma am. tay dama man gëm sama dund quoi man année rek li moo tax maire bi fa romb ko muy say di jéem a kii nii kii ko du man ak yow

dama bëgg nga fekk sa yaay fu mu ne nga dem baalu ko ak loolu laa bëgg du ma ni wala boobu yow xanaa danga dof dof ko la nga sama kër heure bi waaw mais dama la nam moo tax ma ñëw mais c'est pas une raison mais toog naa toog mënuma ko muñ moo tax ma déplacé wu wala ma ne nga may ma sama jàmm sama doom bu ñu gisee lan la ñuy wax kooku du ñu gis man fa laa yaa ngi dégg maa ngi ko bàyyi mu tëdd ci kaw di appel vidéo nee ne est-ce que mun na nekk. loolu da nga bëgg. lol kess la bëgg. ba baax na dinaa la ko defal. ok allez bisous je t'aime. ciao je t'aime moi aussi. comme iblis bu bon bi seytaane xaraam bi. xoolal aayoon nee na ma wala boog. waaw mais yëkkati ma ba ci kaw dóor ci suuf nañ dem sa néeg man mbubu la rek dañu koy sol yére bi dañ koy sumee ay du man yow la du yow jàngale la Nenê, eu tey de sa plat laa la toggal laax ma tàngalal ko baax na soxna kon xaaral ma tàngalal la kafe nga naan nee yaayam lan la bi nga wax ma dëgg ngir yàlla ak yonente bi s'il te wax ma dëgg. ban dëgg nga bëgg a sama yaay mooy may réseau. <laughs> boo nelawoon ba guddi ñu yee la Eh, ñu ne la Maada mooy meilleur réseau di nga koy gëm. yow xalaat nga Maada dañ jël nit jël xaalis boobu mu jaayee ni du lu ko dundalee yow loolu bu mës a def sa xel yaayam loolu amul de. Penda sama yaay ba ma duggee léegi ci néegam. fait comme yow bi sole léegi su nekkul meriso maa lan la koy doyee bul fàtte ni kër gi ay jigéen rek fi nekk wultul ngànnaay suñu attaqué ana nan la def dama bëgg nga dalal sa xel te nga xam demi maada du mes raisons xool ma xaj bu dee bi amul benn njëriñ mu dafay nelaw xajal ma bi man nga xajal ma bi

biin sooy génn nga delloo ma bunt bi demal nga delloo ma bunt bi booy génn si kër gi di reewantu sa yaay la nax penda di la bay bayal ma doom mis caprice de yaa fàtte man fii unique laa <laughs> gis nga benn bañ boo koy sotti chaque jour sax bu yàggee mu weex tàll <laughs> war ngaa yam kañ dem ci ma asalaamaaleykum mu ni ngeen ni recevoir vous êtes toutes belles. là..! buntu ba de dugg xanaa tëjoo ko. non laisse tomber laisse tomber détails la en fait yéen sax du yéen laa de a ci lu jëm ci mais réseau laa soxla mais réseau laa soxla woon du yéen laay waxaaleel ana mère nag benn problème laa am yaayu Kéba bëgg na ma trop mais sama problème yaay bi moo tax Kéba duma takk gis nga yow yaa ngi bëgg ñàkk fayda te man nee na bul ma waxati que ni sa yaay mooy mes réseaux. bi man avant ma koy wax ki fi dugg léegi loolu la wax. dafa ne carrément animé réseau yaa ko gëna dégg. dégg naa bu baax li mu wax parce que moom day jaawale personne ak personnage defkat ak jàngalekat gis nga nee na sa yaay du defkat jàngalekat la l'apparence est trompeuse sa yaay du mère raison ça va c'est lui. ça va. ça va bien. Alhamdulillah. ok merci. ok bon on passe à l'action. ba par yow kan hmm. ma aide à da bëgg. loolu je waxal là. Je Diagne tu es naïve mais li si kanam warewul léegi foo jëm. dama am rendez-vous ak paa bi. am rendez ak kan. Sira yow lan nga sekk ak paa bi. lan lay sekk ak paa boobu. sa sëy ak keebaa rek lay defar. yow sax doo ñëw ma may la seexu keebaa bi almaami mu takk la. ibaaru boobu yaa gën a xam ne man mënuma def ak ibaaru ci kanam. pardon. ñu job job Bon ban job. c'est mes réseaux non. non du moom. bon ça si man je cooy c'est juste que bon ça m'a dit, diis ma yoko.

Oui. Oui, hein. Oui. Oui. Oui, Samandai. Hein. Oui, Oui. Grand. Grand. Grand. Oui, aïe. Oui, Samandai. néné. Grand. Oui. def kii. dama ko bëggoon maa da nga ko tiré sa pistolet bi. dama ko bëggoon jërëjëf mooy sama ndey. doo def kii. lan laa ko def dama ko bëggoon. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ay maa rey nga policier bi. nen bul wax loolu nen ne policier la. ñaaw njort léegi léegi xalaat léegi léegi